jërë ngeen jëf gan gi ci suñu biir ñu koy dàq ko moo lu mu lànk kandaara ne du ñibbi di coronavirus bi tey la fi def weeru mat sëkk Le Quotidien nañu fanweeri fan yu tojul dërëm ne ñaari fan ci weeru mars la ñu njëkk a dégg ka coronavirus ci réew mi tey jii di ñaari fan ci weeru avril mu di fanweeri fan yu feebar bi nekk ci réew mi tëral na fi ñaari téeméeri doomi aadama yu manki fukk maanaam Sénégal mi ngi ci 190 cas ñu jot cee faj ñeen fukk ak ñeent jot fee testé junni doomi aadama ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak benn Vox Populi Sénégal soreetul ñaari téeméeri ka ci coronavirus coronavirus bi ne fukki kaa yi feeñ démb moo ko yóbbu ci téeméeri kaa ak juróom-ñeen fukk ñeen fukki ak ñett yi ñu faj ba ñu wér moo tax ñaamee coronavirus bi ci réew mi te nekk ci traitement ñoo ngi toll léegi ci téeméeri kaa ak ñeen fukk ak juróom suur soit nañu kaa ci kaw kaa kaa coronavirus yi nga xam ne fukk waa ministère de la santé déggee seenu fit de toog mooy ñiy jëfandikoo sàngara di tuxkat yi wala ñi nga xam ne dañuy sooxaale feebar yu ci lool mu méngoo akob dayoom du ko mën a am ndax coronavirus bi ginnaaw bi mu faatoo bërki démb denc nañu ko démb ci ngoon ca Yoff magi record di l'observateur di ñu wax ci yan anam lañu ko jébbalee boromam moom Pape Diouf ubbil yéenekaay bi nit ku mel ne Pape Diouf nga xam ne bu dara xewul ab dëjëm stade Léopold Sédar Senghor sax du ca doy démb ba ñu koy denc frère moo fa nekkoon Cheikhna Seydi ak Étienne Mendy keneen ki leen raxoon mooy docteur Abdoulaye Bousso njiital centre des opérations d'urgence ci réew mi bari na grand place dañu de ba ñu koy def benn ministre de la république xandul ca palais ba ministre bu ca nekk sa bureau nga toogoon ñu brancher la caméra ngay gisante ak président Macky Sall di wax ak moom maanaam loolee ñu naan vision conférence ku ci bëgg xam nan la demee woon photo baa ngi ci xët mu njëkk soleil national conseil des ministres bi woon démb dogal yi ñu fa jël soleil national nañu bokk na ci l'école bi waroon ubbi dàq nañu ko ba ñeenti fan ci weeru mai Sall dafa confiner école yi pikir daara yi l'observateur ne ko boole ko kit jël loxom joo ci jibaam ngir taxawu askan wi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw téeméeri junni ak ñeent fukk juróom-benn ci tonni dund la ñu fas yéene séddale ñi ñu tànn ku ca nekk lan nga war am l'observateur xëy na ko calculer wax ñu ne ci askan wi am na ci ñoo xam ne seen facture courant dañu leen koy baal waaye ndimbal loolee dafay romb Ndakaar romb Pikine romb Tëngéej habilitation bi léegi pouvoir exécutif législatif bi lépp ngi ciy loxom ci diirub ñetti weer yi di ñëw la Sénégal nañu assemblée nationale jébbal na président Macky Sall ngànnaay yépp ngir mu mën a taxaw jàmmaarloo coronavirus bi les économies loi d'habilitation boobee ñu woote démb ci assemblée nationale bu doonum soow la ñu ne la ci doon ñuul honorable député Abdou Mbow moo ko seppi moo suwee assemblée nationale ndax proposition yi ministre bi dugaloon a defub a nit ñi nit ñépp la coronavirus bi fat waaye sursoi nee nañu ñenn du takk der yi ndax ca Touba gis nañu fay takk der yuy def seenub liggéey bay defaale liggéeyu sage-femme yi yëral xët mu njëkk bi ca quartier njenne ga ca Touba seen nas ndaw moo fa doon matu ba naroon a wasin ca mbedd ya takk dere ñoo ko xettali ca quartier kër ñangit ñoom alkaati yi onze heures ci guddi dañu doon dox ba yem ci jigéen joo xam ne moins cinq mu wasin ca mbedd ma ñoom takk dere ñoo ko gàdd yóbbu hôpitalum ndaamaatu